développé wu par semaine semaine semaine semaine ñëw mu mel nii semaine ñëw mu mel nii semaine ñëw mu mel nii bu demee ba nga xam ne ak àgg nañ ci ñeent fukki fan ñeent fukki ñeenti weer yoo xam ne mat na ko mat biir bi mat na ko danañ xam ne ndaw si biir na walla biiru ndax rek foog biir bi dana yëngatu ci doom yi dina yëngatu ci biir bi bu amee ñeenti weer ak fukki fan moo tax euh, euh, laaya boobu xikma boobu tax na benn juif boo xam ne gynécologue la woon loolu moo doon liggéeyam jigéen ñi si ak yooyu mu loolu moo ko tuubal laaya ji moo ko dugal ci lislaam de mu ne ndax sew-sew bi nekk foofu ci xam-xam suñ technologie bu bees bi rek ñu moo ci agsi ba xam ne noonu la waaye bañ xamagu technologie lii xamuñ ko woon ñi ko bon nag ki ko xam ca jamono booba wax ko kooku du mën a nekk nit de yàlla mi ko def rek moom la mën a doon ndax seetlu na ne li yàlla wax ne nañ muñ ñeent fukki guddi ak ñeent fukki ñeenti weer ak fukki guddi nañ ko gis nañ ne jamono boobu moom mi nga xam ne dafay topp jigéen gis ne jamono mu ne boobu nag mu ngi dund ak société boo xam ne ñii julli lañ ñii duñ ay julli mu ne su ko defee buy seet julli jigéen joo xam ne julli la jëkkëram nekku fi dafay gis xoromam xoromam dafay set wecc du am benn toq toq benn pepp bu ñuul toq tomb bu ñuul du ko am ci biiram yépp dafay set waaye jigéen ñi nga xam ne du ay jullit bu kum ci seet dafay gis sa butit gi dafay fees dell ay ay ay loolu ay ay ay ay ay tomb tomb yu ñuul de bi maanaam yaa ngi def loo xam ne tere nañ la ko <coughs> su fekkee nag ñeent yooyu am na ci buñ seetee jigéen boo xam ne jigéen bu set la dañuy gis ne roxo moom dafay set dara nekku ci luy teg tere ne mi ngi def ay du du naka noonu waaye nag ñi nga xam ne duñ jullit mooy dafa seet ne kum ci seetal fekk yow yàq nga yàq nga sa bopp sax mu ne li leen mën a yaree nii bañ nañ ko toppoo nangu ko di ko def mu ne lii daal dëgg rek la mun a doon de looloo ko dugal ci lislaam bon lislaam diine dëggu la de diine dëggu de bon muñ loo woowu ñu muñ loo jigéen ñi du dañ leen di xañ ay bànneex waaye dañoo bëgg bu fekkee daraan ci biiram bu mu jaxase ngir tii doomi jàmbur ak doomi jàmbur ndoxi jàmbur ak ndoxi jàmbur xamoo sa doom kan moo ko jur loolu lay loolu la yàlla di bañal <coughs> jigéen ñi moo tax nañ téye seen bopp ñeenti ak fukki fan ndax ñeenti weer yi ak ñeenti weer yi bu jotee mën naa am jamtalu na xale bi yëngatu ci biir yaayam waaye boo ci tegee fukki fan moom óor na ne su fekkee dara ci biir bi rek foog dana yëngatu de <coughs> fayda balaw ne dem jot nañu nag ajaluhun na dayoob euh, Ah, dara bu ñu di ñëndiku seen dem nañ ba ñeenti weer ak fukki fan yi jeex na falaa junaa xaddeet bakkaat aleykum war leen yéen ay wàjjur fii ma faar na ca def nañu ko ñoom jigéen ñi fi am su na ci bopp seen de fekk nga xam ne ñu ngi nekk ci edda dañuy tëyu dañuy toog duñ taarlu duñ kañ la koloñ duñ def loo xam ne dana xemem loo góor ñi ci ñoom duñ gaaral seen bopp ngir bëgg ku leen takk nañ toog rek sol seen mbubb yu em rek toog yi ci nit ñi di teg yépp nag gannaaw loolu del téye weñ bu ñuul del téye paaka bul génn yow kenn loolu yépp yuñ ci yuñ ci nit ñi yokk la rek ngir jafeel ko waaye rek liñ la aaye mooy bul taarlu bul loj koloñu jeex na bul xeeñ ay loj koloñ loo xam ne dafay xiir gël ci yow rek bottaniku ko de waaye terewuñ la nga génn su fekkee li ngay génnee lu ko jar la soxla bu ko jar moo la tax a génn loolu aayawuñ la ko mën ngaa génn doxi sa soxla yooyu yooyu yooyu bari bëri nga xam ne nit ñi teg nañ ko ci ténje loolu yépp eh, ay bidaa la yoo xam ne nit ñee ko kewalal seen gannaaw lii baax na lii de lu baax la te lislaam taxaw ci loo rafetlu ci sa xel lislaam mu ngi taxaw ci loo toxalee mu jógee ci yu wër jóge ci alquran jóge ci hadis jóge ci ay boroom xam-xam yoo xam ne xam nañ di ñuy nettali lislaam dañ koy toxal waaye duñ ko xelaat du ma sa xel su ma suma xel yox ne rafet na rek naa ko dugal ci lislaam def ko loolu du lislaam loolu du lislaam lislaam jàngale noonu lislaam dafay jàngale rek an an an nangam an nangam an nangam bu mu àgg si yonent ba ma àgg si yàlla rek waaye bu ngeen ko defee nii wattu ne loolu yëpp ay ay ay waxi xel rek la yoonu kenn du du du lislaam du dara falaa junaaha déet bàkkaar aleykum ci yéen fekkee nag mbiram euh, diirëb euh, ba nga xamee ne jëkkër ji dee na ba muy tënji diirab tënji bu fekkee jeex na def na ko ba mu jeex fayda balaa neem jot na ajaluhu na jiitab jeex ak di diitab mu njëndiku seen falaa junaha bi bàkkar aleykum ci ñoom ci yéen yéen ay waajur yi fi ma faal na la sañu ko fi yéen si na ci bopp seen ci taarlu ak gaaral seen bopp de bin maaruf ci ñu xam ci yoon bu fekkee nag dat bi jeex na lam la muy def ci boppam di rafetlu di taarlu di gaaral seen bopp foo xam ne dañ ko dañ ko fa gis ba bëgg ko mu ne loolu dara nekk ci de jarut ngeen ciy mer waaye nag su defee lu mel noonu ci biir eh, tënj bi bu boobaa nag ay waajuram war nañ koo taxawloo bu jaree ñu xas ko sax ñu xas ko bu jaree ñu dóor ko sax ñu dóor ko ndax dafa génn loo xam ne yàlla moo ko ko digal amu amu te loolu amu ci waaye bu xasee ba génn nag ci li nga xam ne yàlla digal na ko ko bu boobaa nag bàyyi leen ko lu ko neex lu lu ko neex lu dëppoog yoon te mën na koo taxa gaaw am ci kër mu def ko bàyyi leen ko bàyyi leen ko mu toilettu bàyyi leen ko mu xeer laj koloñ mu laj koloñ bàyyi leen ko mu daagu foo xam ne danañ ko fa gisee nit mën na ko faa gisee ba bëggu ko yooyu yëpp bu boobaa ayu de walaa junaaha déet bàkkaar kum ci yéen góor ñi fi ma arabtum ca la ngeen gaaral ko re bii ci moom mu xitbati nisaa yi wallaahu yàlla xabiir na ji xam na mu ma tàmbaloon ci la ngeen def ko de li fii wax na sànq ne li ngeen di def mu ngi koy gis fii wax na fi ne li ngeen di def yépp xam na ko bon nag mi ngi ànd ak ñun mi ngi gis mi ngi ànd ak ñun mi ngi xam te li muy xam ci ñun foofu loolu lañuy ñuy àttee te dara réeru ko ci lii mu ngi koy lii yépp mu ngi koy gis mu ngi koy mu ngi koy xam de wala junaaha déet bàkkaat aleykum war leen fi ma aratum ci la ngeen gaaral bii ci moom min xidbati nisaay ci ngoro jigéen ñi de jigéen joo xam ne nag dem na ba nga jigéen joo xam ne jëkkëram dee na mi ngi ci ténjëm aaya nañ góor yi ñu ñëw di leen ngoro si ngir takk leen ngoro goo xam ne ngoro gu weex la ku ko gis rek da ngay xam ne dangay ngoro aaye nañ góor ñi buñ def loolu waaye nag may nañ leen ñuy gaaral daal gaaral wax boo xam ne ndaw si dina ci déggee kii daf maa bëgg ah yow de rafet nga lool ah yow de ku la amoon ku amoon ku mel ni yow jël yow de nangam di ko wax wax yoo xam ne daal ndaw si dina ci déggee kii daf ma bëgg a takk yonente sallallahu alayhi wa sallam umu salamata bi jëkkëram dee yonente dafa ñëw rek toog ci kaw lalu umu salamata ne ko xam nga ne man maay gën ji mindéef maa gën ñépp xam nga ne man maay yonent yàlla xam nga ne ëllëg bés si maay ram mu ni ñépp mu ne ko ah, yonent bi danga may ngoro te fekk maa ngi ci téñ ji yonent ne ko lii du ngoro lii gaaral rek la du ngoro nit nag bu ko neexee mën naa gaaral jigéen ji noo xam ne jigéen ji dana ci déggee ne kii daf koo bëgg daf koy bëgg a ngoro waaye nag dama lay ngoro carrément loolu moom aaye nañ ko bu ko def de moom la yàlla di wax ne laa junaaha déet bàkkaar aleykum ci yeen fi ma arabtum ca la ngeen gaaral la ngeen di gaaral seeni seen jigéen ñi tënj mi min xitbati yi ci ngoro jigéen ñi nga xam ne seeni jëkkër dee nañ de loolu nga dem gaaral leen rek yow ku rafet nga yow ku jekk nga yow de ku la amoon yow de ku la amoon jël man dey bëgg naa soxna wax koo wax yoo xam ne dina ci déggee ne kii daf maa bëgg de wa aw aknantum ki ngeen nëbbu ko fii anfusikum ci bakkan seen li ngeen di nëbb ci li ngeen di wax di ko feeñal ak li nga xam ne yéen ko nëbb ci seeni biir bakkan waxu leen ko yàlla moom xam na ko de yàlla mu ne alimallahu xam ne yàlla annakum naka yéen sa taskurunahunna xal nga leen xal nga xal nga xal ngeen a tudd ñaar jigéen ñi ne da ngeen leen a bëgg a gannaaw yàlla xam na ko tax xam di ngeen ko feeñal bon bu ngeen eboo rek def di nga xam ne mooy moo ak nite nit euh, euh, ba ba nga xam ne doo di feeñal ngoro mel ni amoo yërmande yàkkamtoon nga jëkkër ji dee ba mu jël ko loolu yëpp bu ci dugg na nga rek am yek am yërmande jox nit ñi seen cër ba nga xam ne booy dem di ngoro ji jigéen ji itam da ngay gaaral rek waaye boo demee nag ba nga xam ne yàlla nag nee na xam na li nekk ci sa biir xam ne li ngay nëbb ne di nga ko feeñali bon nag bu ngeen ay boobu rek ba jamonoy feeñal jot ngeen feeñal ko de kii lu fi nekk nag laatu waaye duhun na bu leen dexalanteeg ñoom sirran ci sëy ca ci ci ci mbóot de leneen nag bu fi nekk di wax naan di ko wax naan dinaa la takk ci ci di ko nëbb wax ko ko ci mbóot fekk loolu yaa ngi ko bëgg a def mu ne bu leen ko wax bu leen ko bu leen ko jox bu leen leen jox yaakaar boobu dama leen di takk te li ngay wax feeñaloo ko da ko wax ci mbóot mu ne loolu itam bu leen ko def de bu ngeen di wax daal lan leer rek li ngeen di wax yépp teg leen ko ci kaw taabal yi ñëpp gis ko ñu xam ko waaye nekk fi di wax lii ci suuf di wax leneen ca kaw loolu bu leen ci dugg de illaa fi nekk an taqulu bu ngeen waxat xawlan wax maarufan ñu ne ñu xam ci yoon de loolu rek ngeen di wax wax yoo xam ne loolu moom yàllaa ko digle mooy li ñu waxoon sànq mooy ngay gaaral sa bopp rek ndaw si comme loolu yonent def maay yonent maay chef yow waraa maay nangam ak nangam ak nangam loolu bu ko defee umu salamata moom dal dina dégg yonent dag may ngoro te maa ngi ci tënj mu ne ko déedéet damay gaaral rek yow tamit demal demal di gaaral rek waaye bul dem nag di wax ak moom dama laa bëgg a takk ci mbóot bu ëllëgee ma mën nga koo mën nga koo wax loolu ba pare bu ëllëgee doo ko def bon nag mu ne yàlla mu ne laa tuwaay duwun na bu leen dexal leen leen séddën ak sëy ci mbóot de <clears throat> illaa lu fi nekk an taqu lu bu ngeen waxat xaw lan ay wax maarufa ñu dañu xam ci yoon lu fi nekk daal mooy na ngeen wax ak ñoom rek wax barhaamu baaun waraun alifun thumma ha